mu wax ne Wally Seck dafa war a xalaat dee na Wally Seck xalaat dee Coupe d'Afrique bi ñun africain yu bëri dañoo sot sénégalais yu bëri dañoo sot ñii di xërëm Wally Seck bu daan génn clip benn fan day am cent mille vues est-ce que fans yi dañoo mere Wally Seck mu jégguli imam Kanta imam Ndaw ndax ñu dem ba imam Ndaw di wax ci lii nga xam ne fi grave dafa mel ne ñoo jël coupe li ñuy gis ci nit ko gis te xam nañu Youssou Ndour tay bu démé place de l'Obélisque man de dama fier fi mu nekk je suis fier d'être sénégalais c'est cool d'être sénégalais. tay dama yow gis né Wally Seck ak Youssou Madjiguène Ndour am coow lu reuy Wally Seck. t-shirt drapeau ñaari tour moko top ba légui Youssou Madjiguène Ndour dañu ne wa PS parti politique PS ñoo dal ndax Ousmane Tanor Dieng dafa génn aduna tay moy juroom ñett ak Ousmane Tanor Dieng ñu ne Youssou dafa am benn concert bu muy def place de l'Obélisque ngir sargal suñu gaynde yi nga xam ñoo dem pénal coupe d'Afrique moo fi nekk nañu dem ci Wally Seck ba pare waxoon naa leen coowul Wally Seck bi dina wàññeeku de waaye du jeex li fay Wally Seck génn mu jubóo imam imam Kanté mu baalu imam Kanté ana tiim Wally Seck conseil Wally lu tax defuñu loolu ñuy bàyyi yëf yi di gën a baax c'est le plus grand parolier de l'histoire du Sénégal Manam bu fekkee ne woy la rek ak nit ñu lu baax ci koy la communiquer comme ses lacunes en matière de communication maanaam mooy ne bu dee wax wax xam ne mais dafa am problème ndax Ngaaka dafa génne benn clip bu bon nañ waxante dëgg Soukayla moo ci solo solo bu ñaaw waxoon naa leen Ngaaka dafa waroon dindi clip bi ñu wane photo bu Ngaaka Blindé bi ne ko fan ñu bind ne clip yu bon yi wane photo Wally ne promotion góor jigéen promotion ñaari tur imam bu ñuy wax Dramé bu nekk 2 yi moo génn mu xas Wally Seck xas yu doy waar yoo xam nee na Wally Seck dafa yebaate ndax yow yow yaa def sa ñoom rek au lieu nga jéggul nga génn nga ne da ngay porter plainte yemuloo fa sa papa bi xam ne dafa génn ku ne Wally Seck ñaari tur la na nga jël sa doom nga yóbbu ko sali nga porter plainte imam Kanté waxatuñu sa papa ne bu ñuy demee tribunal nit ñi dinañ jógee ba Londres fees tribunal ngir won imam Kanté ne ñoom dañoo am doole imam Dramé nag nee na ndax doo tooñ di jaay rëy la wala di jaay xaalis nee na xaalis bi xaalis bu ko nit am dafa war a lew Wally Seck xaalisu ñaari tur taxuñu xaalis mu ne xanaa gisu borom xaalis yi fii gaañu sax mu wax ne Wally Seck dafa war xalaat na Wally Seck xalaat dee moom wax na ba tëkku biisu ngoone ndax biisu ngoone dafa yi imaam Kanté yenn imaam yi ko nekk ndax moom dafa jàng alxuraan léegi imaam Dramé nag nee imaam wóorul nee na am na imaam yoo xam ne bu ñu génnee ba def seen listixaar te bu ñu la ñaanalee mën nga génn àdduna ci ni mu waxee waaye tànk jégaluwul lii du mës a ndax lii dafa garaaw naa leen ko ndax imaam Dramé nee yow waxal ñaari yi ba ñu génn di la ndokkeel di la félicité wala sax dafa waroon génn ne ñaari tur yi bu leen ma félicité gis nañu wala sax génn na fi benn clip dina ñëw way ko lion waaye taxu kaa bëri vue noonu ndax wala sax bu daan génne clip day dem trending mais clip bi Wally Seck génne na ko cinquante quatre mille vues rek la am Wally Seck bu daan génne clip benn fan day am est ce que fans yi dañoo mere Wally Seck doy na waar li tax lii doy waar mooy Wally Seck bu sol fi lu mu warul sol wala mu wax fi lu mu warul wax même bu fekkee dafa juum sax nit ñi dañ naan moo ko tey te bu boobaa nag kenn dootu ko baax mu jégguli imam Kanta ak imam Ndaw ndax ñu dem ba imam Ndaw di wax ci lii nga xam ne fi garaaw na imam Ndaw nee na Wally dafa war a jéggul nee na Bijou Ngoné dafa war a jéggul ne mën nañu wax ne fi mu nekk nii Wally Seck la contre beaucoup d'imams du Sénégal te Wally Seck boobu mun ko gagné. Youssou Ndour tamit coow li ñu ko bëgg indi. mooy ne dafa def concert tey. est-ce que dafa war a bàyyi concert wala war a ko bàyyi. loolu Youssou Ndour moo xam. en tout cas bind nañ ne Youssou Ndour warul def concert tey. yi la dellu njëkk suñu Lions yi nga xam ne nañ leen teew. kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis. ñoom la li ñu gis ci nit kenn mosu ko gis te xam na ne Youssou Ndour tey bu demee place de l'Obélisque day fees tel li nga xam ne aar lañu bokk mënuñu ko. ndax ku mel ne Fou Malade waa Y'en a marre dañoo dem géejewaay ñu désacraliser leen. kenn ñëw pepp nit moo ñëw waaye gis ngeen xool leen lion yi nañ leen teeroo lii dafay wane ne Sénégal bu bëggee génn ngir xeex ci pétrole bi. kenn mënu ko tere waaye dañoo xam ne wax yooyu intéressé wu leen ñoom li leen intéressé mooy Sénégal am ndam. xëy na nag loolu tax am na ñoo xam ne bëgguñu Youssou Ndour ndax bu woyee dafay bëri am na ñoo xam ne fu mu nekk bu ñu sañoon Sénégal du dem du sax génn nit nag nga ànd ak Youssou Ndour nga ànd ak nga contre Youssou Ndour nga contre Macky nga ànd ak Sonko nga ànd ak Idrissa Seck warul tax nga bañ Sénégal lii ndamu Sénégal la suñu lion yi dañ ñoo siggil man de ma je suis fier d'être sénégalais c'est cool d'être sénégalais le football bi football nous rek ñoo football ay la ñu am coupe d'Afrique bi ñun africain yu bëri dañoo sénégalais yu bëri dañoo sot ñii di xërëm arbitre yi di sàcc mais ba sénégalais leen wan am nañu ndam moo ñu